mbokk yi ñoo ngi leen di euh, jaajëfal ci topp bi ngeen di topp seen euh, groupe euh, Timis Média ak suñu support yi di timisactu.net ak Timis TV si YouTube bi ñu nekk fii nag ci marché ocas ñu ñëwoon fii ci benn magasin boo xam ne mu ngi jaay ay bagages xam naa duñ ci sori dañuy jox mbokk mi rek mu wax ñu moom mooy kan ak li xew fii entre yow ak waa Safinatul Amaan naka la demee ginnaaw ba ñu waxee assalamualaikum maa ngi leen di nuyu yéen mbokk yeb di ñu ziaré di ñu ñëpp su ne sa tur sa euh, man la Moustapha Moustapha Guèye waa Safinatoul amane dañ fee ñëwoon ay jamono ci ginaaw bo ma ngi seen ñu daan ne ñu daan ni ben arrêté daan ne léegi dañuy téré mes leen ak yu démé non daal lima limuy bari ay xef yu def ci bop jigeen ñi ak limuy bari té suur biñu indi biñu indi indil seen lettre yoyu diko indi fi fekk ñu fi. te boobu itam li ñu teral lépp nekku ci place bi muy benn ma de ma ñëw sama xale yi nett li ma ko may leen kon conteneur bi di ñëw def lenn bu dikkee du ma ko wàccee fii balaa ñëw dinaa wut dépôt Mbàkke ma wut dépôt Mbàkke xam nga facture Mbàkke ma wutee dépôt Mbàkke client bu may jaay damay ànd ak yow dem Mbàkke génnee sama facture bi sànni ma ko génne facture bi luñ bind fi adresse luñ fi bind Mbàkke marché Mbàkke len la ngay jaay fa nga koy jaay foofu ngay def adresse ba boutique bobu boobu mbàkke yaa ngi dégg marché mbàkke plan ma dëkk ndar ma bindal ko facture jaay ko benn bal mu dem bimu demé bu ñew exit 28 marchandise bi mu ngi woon mbàkke client bi timu jaayuma ko fi dama and ak mom bima ko jaay man dama ko libéré fo mom mo guéné bagage moko mom yow nang ko mom moko transfert mbàkke jëliko jëliko jële diko indi di ko client bi mom client bi bi mu jëlee Mbàkke Tuubaa di ko indi fii euh, oto frigo bi nga xam ne moo waroon a yeb bagage yi parce que bagage yi ñu ko njëkk a jaay sama xale yi ñoo ko jaay fekk frigo ba dem moo ma téléphone frigo ba ko waroon a yóbbul si yoon bi fekk frigo ba dem mu woo ma ne ma bal bi de du mën a dem ndax frigo ba dem na ma ne ah ma ne jóge naa Mbàkke maa ngi taal sama oto di ñëwaat nii Tuubaa mu ne ma léegi naa ko wàcc bàyyi sa place ma mukk sama place comme nga gaañee man dañ may bindal ay comme ay ay ay ay dañ may bind ay lettre rek nangam di ma alerte bugguma am ak ñoom problème mu ne kon naa ko dénk ko dénk sa gardien bi nekk fii sant commercial bi nekk fii man maa ko moom ñu egg sant ba wàcce wàccee kii bi bal bi ci bunt bi dénk ko gardien bi gardien bi téye bal bi. yow yaa ko dénk bagage wala moom waaj moo ko dénk man dénk ma ko waaj daf maa woo jokkoo man ne da koy dénk gardien bi ma ne ko dénk ko ko. Hmm. xamante woon na gardien bi ma woon na gardien bi ba gardien sama gardien la. kon yow yaa ko orienté foofu maa ko mm, déedéet moom moo ne ndax ma yóbbu ko ca gardien bi man maa ne ko yóbbu ko ca gardien bi maa ngi tudd nekk damaa jàpp man maa ne ko yóbbu moom ma ne ndax mën naa dénk gardien ma ne ko bu la neexee mën ko dénk gardien bi mu woo gardien bi jox ma ko ma ne ko kooku noonu nee na oto bi dafa kii bi euh, oto bi doon yóbbu bagage si frigo bi dafa dem nee bal bi bu suwaa dina la boole koo xamante ne koy jël si waaj jënd bal mi ngi tudd Mouhamed Ndiaye mën la jox ngi penante léegi porte na leen plainte nyom ñoom ñoom bi euh, su suba ga ah su su suba ga ñu di fay ñëw waaw biñ ñëwee ben waaye lañ mo njëkk ñëw di traîner ci biir centre bi fekk ab conteneur di wàcc conteneur waa ji jaay yëre xale yi mënoo wàcce conteneur asan sëf nit amal bi ñëw di traîner ci biir gardien bi nako ko yow looy def mu ne ko man la man da dafa am ku may xaar yaa ngi gardien bi taxaw di kahar. xaar kokot daal di gen, di si kanam mu daal di ñëw ànd ak ñaar ku ñox mu taal ak beneen gannaaw ba lay takk masque ba biñ ñëwee daal dugg ci biir daal ne ko dépôt lañ bëgg. gaaj dépôt lañ bëgg gardien bi ne leen dépôt amu fi dépôt yi jeex man gardien depo, fi ñu ne ko daal léegi ñu xuus forcé ko jàll ci biir gardien bi ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko no dafa am soxla ci dañoo am soxla ci biir gardien bi dedet amu leen fi dépôt kon génn leen ñu ne ko dañuy dugg ci biir ndax ñun waa Safi Amane dañu fi déclaré leen daal di ci biir biñ duggee fekk fa ay bal yoo xamante ni tamit bali wëñ la bali wëñ la tamit beneen client laa ko jaayoon. wëñ yi bokkut ak leen wëñ yi bokkut leen bi leen bi bal booy bi bi muy taw da koo jëloon jàlle ko ci biir parce que si courant bi nee naa la ci la ko ko wàccee mais da koo jëloon jàlle ci biir ñoom bu ñu egsee ne dañuy jël bal bi ci la ma gàjjee bi woo ma ñëw mu ne ma ñun la ma ñëw ma laaj ko loolu la mu ne ma yaa seen amaan ñëw fi ñëw expliqué ma comme li ma la wax daal. ba ma egsee may leen sëñ bi ñu ne ah man ne ko gardien bi ana facture bi la gars yi joxoon bi ñu indee bal bi mu génnee ci poosam ni ma facture baa ngi nii ma ne ko liir leen li li Mbàkke la jógee Saint-Louis la jëm oto baa de moo tax ñu wàccee ko fi xanaa tubaa wutu bañ transit jaar jàll waaw mu wutu bañ loolu ndax ci yoon la nekk ñu ne ma daal ñun xamuñu transit xamuñu loolu li xam mooy bal leen dañ koy tere Touba te gis nañ ko fii dañ koy yët suñuy kilifa. may itam bugguma ñu jël lène bi kessa dem su boobaa du may pelante duma xam ko may pelante ma ne légui man xam ay bandé fi ñew xam ay fi ñew balé ma leen di jox sama alal ah wala balé ma leen di jox li nek fi da ngeen may wax yene ñan parce que timit xam bandi xam woyu ma jël sama alal di ko jox ci noonu so ëllëgee duma xam kan mo jël sama alal duma ko def mu tal daal di génnee poosam génnee kartam wan ma man bo lu ci dund sama moy naa xam bu may pelante man ma xam kan laay pelante parce que il faut ma xam man kenn laay pelante parce que mun maa pelante waa Safinatoul Aman ki ñëw sama dépôt tuddoon noonu kooku laay pelante bi ma ko xoolee muy Modou Tall ma ne ko jël ma ko léegi fan la bal bi jëm ñu ne ma boo ko bëggee xam da ngay topp ma ne topp ba fan ñu ne ma sunu baas mooy ay nu raxmati en face ñu taal seen oto teg ci bal bi dem may ma taal sama oto topp leen léegi ba ci euh, euh, ay nu raxmati ñu naan ma léegi nañ dem ci kilifa gi sëñ bi ma yaakaar sax xëy na sëñ Modou Lo la yoo xam kooku ma topp leen ñu yóbbu ma ku ñuy wax Baye Mbaye Sarr ba ma yeggee Baye Mbaye Sarr duglu ma sax may wax daan ne ma yow wax gëm ma ko. wax gëm loo wax yow gëm say gëm say wax. daf laa xamoon avant. da nga da nga xam avant xanaa dégg mais mosu ñoo toog ma a moom wax ma wax suul boobu la njëkk am mu ne ma loo wax gëm ma a ko bu la neexee du la delloo dara loo ma wax ci wax ju ñagas ndax am naa ci yow respect. mais nak su fekk da nga yebal say ndaw ñu wax la kiñ ñu buñu bu war nga ma diglu parce que ñu ne ëpp maakaama sax dañu togo ñom di leen expliquer ñuy diglu comme que nag nee nga yow sama wax gëmu ci dara lu wax ay nangam tan wax jaar ci digg ba sax loo wax na bëgguma ko wax ci ki wa da na loo wax nangam tan ma ay fen la dal man ne comme noonu demé da yow loolu nga wax jërutuma eggale jóg dem bama démé demee fekk déposé woon naa plainte contre x lu ma deux mois plainte woon naa contre x parce que dama def ko moy ci ci ñoom ci benn mbir non ci ben du ci ben mbir bi li waral lolu dañ na njëkkoon a fekk ci dépôt bi dama menacer ci nan ko waral dañu ñëw taxaw ñoom wa semaine amal fekk ba mbàkkee gaay seen auto taxaw jakkalo sama dépôt di menacer nan ma len mom ku duggal tuba da nga xamne yow ba si moom ke bay na nga di wax ay wax yi sew dal faale mu len ma dem fële commissariat bu fee nu mu tribunal bu Mbàkke fala de bindon plainte contre x yaay deg bi affaire demee ni même Baye Mbaye sa waxee lol ba dem dama damaa dem police commissariat bu janatu porte leen plainte plainte bi ma la waxoon moo njëkkoon am deux mois maa ngi woon ak euh, euh, numéro mention kii bi numéro maa ngi woon ak moom ma demaat euh, commissaire fee tribunal bu Mbacké plainte waa leen muy ñetti plainte ma yët leen ko bi ma leen ko yëtee police convoqué leen woo ñu ñu ñëw ñu digluñu sama client bi dëkk Diourbel fee Saint-Louis ñëw moom itam daan moom it balam da ciy jot daal di plainte muy nag bi loolu amee affaire bi bi waa police enquêté dañ ko yóbbu tribunal bu Mbacké affaire yaa ngi tribunal bu Mbacké moo tax tey bi ñu ma convoqué waatee fee bi ñu eggee ne kii ngeen wax comme kii ngeen wax yëf yaa ngi commissaire yëf yaa bu Mbacké amatu lu ñu ci wax déglu leen lu mu wax ngeen xam ne loolu la moo tax ma ñu bisiwaat nii yaa ngi dégg léegi nag euh, bi nga xamante convoqué naa leen noonu. dañ joxoon convocation dañ maa woo loolu la 15 la woon. non tey moom laa la wax ni moom laa wuyu woon guy mbind guy police bi moo ne commissaire moo ne loolu mooy leneen mooy leen moo xamoon ne kii la du ko bindal penante mhm. parce que kii ah, yëf yaa ngi tribunal mhm. amatuma lu ma ci wax mhm. léegi ñu daal di tey dañ maa woo suba teel ci bureau Sini Dieng mii bu délégué marché bi daan ne ma léegi. Sini Dieng Sini Dieng moom woo ak euh, chef de quartier tubaa Mosquée. ñu ne ma léegi dañuy dañuy waxtaan mais li waxtaan di ba ma ko ndaxte guerre mondiale sax su ma juumul ci waxtaan la mujj ngir lu métti métti rek mais na ko waxtaanee. waaw ñu ne ma léegi waxtaan mooy ah, dafa ñoo xamante ne waa Diop hmm. nee ko da daa jàpp mais waxtaan di nan la ci lan la ñuy waxtaan ñu ne ma léegi yow yëf yi waroo ko woon yóbbu si yoon dañoo waroon toog fi waxtaan ndaxte nii ak nii ak nii la demee. ma ne leen la daa may laaj ci bi nu mu demee ma nettali ko ni demee ñetti nett lañ demee ñu naan ne léegi daal si ñu daan léegi daal léegi nee am Baye Mbaye Sarr dina sama sama xarit la maa mu ñu ànd guddeeg jégalu ko baalu ko àq affaire plainte yëpp jeex ma ne ko man maay jégalu ko xam ne tooñu ma ko billaahi wallaahi wa taalaahi du nit koo xam ne tooñu ma la bu ma doon xañ sama àdduna jëpp dama leen ko jégalu yaa ngi dégg ñu daan ne ma léegi kon léegi nañ dem tëj ko comme nangu te négocier mais dem ne ah, ah, ngeen génnee waaye man du ngeen ma génnee fii ah te bu ngeen ma génnee ci ko force lay doon kon da may forcer waaye ci kaw négociation. tëj bi ko sabab tëj bi dañ ne ma léegi da ngay yi ma def hmm. ma négocier ko baalu àq du ma leen baalu àq du ma négocier hmm. lan laay négocier dinaa dem tribunal jaabante lakk sama kay bi def sama crédit lu ne ma def ko ba si fii ñu tooñ ma ma leen di jégalu ma ma sukk di jégalu ah fan lañ ko teg waaw ba mu bàyyi plainte ak jégalu leen ku tooñee jégalu su ma leen jégaloo rek da da ko damay nangu ne man maa tooñ tooñu ma leen du ma jégalu tey du ma jégalu àll looloo looloo wax bi wasalaam.

nit rek la mën a doon. ñun ci marché bi lañ nekk day jaar yoon. man affaire bi affaire bi. man kii sama jarbaat. maa ngi ndeyam nga bokk ndey ak baay. dégg mm. nga maa ngi ndeyam noo bokk ndey ak baay. léegi la ma papaam woo ne ma dem fa ba xam nu mu defee. dem na woo naa waxtaan na ma ak siini siini ma damaa bëggoon tafa daal gannaaw ñu ay mag lan mu jéggul de def leen nangam nangam ma ne ko déet jéggul bi naa waxtaan ak tafa ba xam nu mu demee waaye comme nii la demee nii ñoom ñoom ñoo ko tooñ